Grande émission sur votre scène TACO TV. Oui, avec votre émission préférée école ak moom Khalifa émission bu mag baa ngi noonu mbokk yi yeeg si na yéen a ko doon laajte émission bu mag bi moom Khalifa di leen koy defal l'école ndaanaan ci biiri ndaanaan ndaanaan di ci dalal ay morom yi ndaanaanam question réponse entre enseignant et enseignant élève et enseignant ay jàngat yu am solo ci biir école yi wante du ca yam di dalal enseignant yi benn par benn ñu jooy li nga xam ne moom moo leen metti wax li nga xam ne moom moo leen naqari ci biir enseignement bi xanaa leer Dak TV lépp fi lay leeree gaaral votre chaîne préférée duñ ko fàtte toutes les mardis saa seet sa téléphone toog di ko xaar yu doy waar seen émission l'école ak moom Khalifa yamul ci loolu yow mi nga xam ne seetaan nga vidéo bi nga am ci ay question bind ko ci suuf moo xam question yu jëm ci élèves yi la wala ci enseignant yi wala jàngat yu am solo yi ñuy def ci biir daara yi bu ko defee ñu andil la si yeneen émission yoo xam ne yu am solo la. kooku émission baa ak moom Khalifa. C'est votre scène préférée, Taco TV, la lumière du cœur. L'héros l'héros l'héros l'héros asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi baaxoo di seetaan seen émission école ak maam Khalifa nuyu nañ leen fi ngi leen daan nuyoo suñuy antenne muy Taco TV di rafetlu àndandoo bi di leen. remercier bu baax a baax tey nag euh, suñu émission école ak maam Khalifa dafa ñëw dalal euh, étudiant parce que étudiant yi jamono ji ñuy wax ak yéen fa daanaka ñoom ñooy xewle ndax ay fan yu néew rek da nga leen dégg ñu delluwaat sa sa daara ja te ñëwar cee dalal benn benn ndongo ñu koy wax Pape Ndiambé Diop Pape Ndiambé ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay maam Khalifa. di la ziar di nuyu mbokku téléspectateurs yi suivre chaîne bi yëpp ah, di rafetlu invitation bi di ci kontaan itam bu baax baax. jërëjëf Pape Ndiambé Diop mu mel ne ci gannaaw état bi waxoon na ni bu ñuy àggee ci weeru septembre ndongo yi dañuy delluwaat ci ci daara yi muy université yi. est-ce que yéen a ngi waaj pour delluwaat ci ci université yi wala déet wala pareegu leen yéen étudiants yi. waaw moom Khalifa comme ni nga ko waxee noonu la demee état yi programme woon na depuis ne dinañ jàngi le première septembre bi waaw ñu ngi koy waajal nag donc ñu ngi waajal pour demaat jàngi le premier septembre bi donte nag pareeguñu pareeguñu pour suivre cours yi ci septembre bi ak conditions yi nga xam ne moom la. système sanitaire bi tollu es bi nii waaye nag comme que ndigalu état la on est ñu def préparation dellu dem jàng ji waaw kon kon daal li ma la mën a tënk ñu ngi si waajtaay yi pour pour pour delluwaat université. waa mu mel ne ku ne ku ne Covid 19 wax rassemblement xam nga da ciy aay dañ koy bañ waaye nag ku wax université wax xam ne foofu moom fa rassemblement gën a bëre. moo tax est-ce que dina yomb étudiants yi ñu respecter les mesures barrières ak euh, ni ñuy dundee nga xam ne buñ dee lekk ni ñuy rassembler buñ dee tëdd seen chambre yi tout ça est-ce que yomb na pour que ñu mën a respecter mesures barrières yi. waaw moom Khalifa <laughs> question bi nga laajtee am na njëriñ trop parce que itam lu jar a bàyyi xel la ndax ku xam université xam étudiant. xam ne université lieu de rassemblement la te en plus étudiants yi dañu social trop entre ñun comme ni nga ko gisee tamit euh, du ñëpp du étudiants yëpp ñoo nekk ci campus sociaux yi booy seet euh, plus de la moitié ci étudiants yi nekkuñu ci campus sociaux yi te ñoo ngi noonu après ñoom ngay bokkal restaurant ñoom ngay bokkal amphi waaw léegi ak ñi ngay bokkal ak sa chambre tamit loolu tamit beneen affaire la mu mel ni fekkee dañu commencé ci campus sociaux yi. dèjà yow da ngeen ñëw regrouper seen chambre ku nekk ak fi muy jugee léegi comment ça fait nga bëgg a tout chaque jours nan ngay mën a respecter les règles barrières chaque jours loolu doo ko man peut-être les campus campus sociaux mën nañ def euh, ay équipes yoo xam ni des équipes yoo xam te ni euh, dañuy am médecin ak tout tout le dispositif qu'il faut comme ça étudiants yi bi ñuy defee retour képp ku nekk balaa ngay dugg nga mën ñu mën defal test. peut-être bu fekkee campus campus sociaux yi ñu defal la test xool ndax yow am yaa ngi virus bi wala nekkoo ak virus bi léegi fekkee nekkuñu virus bi ñooñu noonu fekkee bu fekkee nekkuñu virus bi bàyyi nga dugg léegi ñooñu noonu nekk si campus sociaux yi ñooñu peut-être ils sont en sécurité ñoom ñëpp voilà amuñu problème yoruñu jàng doomu jàngaro bi mais le problème nekkul foofu mooy après dañuy dajawaat ci restaurant yi te restaurant yi mënoo est-ce que ce sera possible nga defal test tous les étudiants de l'université yaakaaru mu nekk mu mën nekk léegi restaurant dañ fay dajewaat est ce que restaurant les règles barrières parce que euh, parce que les mesures barrières pardon parce que tamit euh, boo gisee euh, restaurant yi dañuy def ay queue booy seet te queue yi sont trop chères dañuy tafante booy seet daanaka distance cinquante centimètres sax du fa am voilà léegi ku nekk day dugg a génn dugg a génn te léegi da ngay ñëw occupé benn place sa morom ñaar occupé même place te kenn du nettoyé table bi ba ak benn produit boo xam te ne day day désinfecté wala gel alcoolique ak gel alcoolique voilà léegi yow moom table bi kooku toog ngay toog après fi mu tegoon ay loxoom di lekk fa ngay tegaat say loxo tamit yooyu yëpp ay risque la yoo xam ni mën naa wax ne du yomb kon ñu éviter li nga xam ne mooy mesure barrière yi bu ñu demaatee encore si say euh, salle de classe yi wala en fii la aussi dañuy dajalowaat parce que ak effectif pléthorique yi nga xam ne ñooy am si par promotion salle bu nekk da ngay gis benn salle bi est-ce que di déjà université sax du ñu am assez de pour mën a répartir les étudiants comme ni ko defee ak lycée yi ak ak ak ak école yi ndaw ndawaan doo ko mën université tu es nga bàyyi groupe bi noonu te groupe yi déjà dañuy pelotori dañuy fees dell si si si si en fii donc foofu respecter mesure barrière du yomb foofu du yomb parce que déjà loolu regroupement bu méttee métti la boo xamante ni day am foofu noonu moom xalifa waaw kon li nga wax lépp buñ ko buñ ko déggee mënees naa wax rek ni kon. ouverture bi bëri na ay conséquences parce que risques yi dafa bëri wala yaakaaroo ne ouverture bi ñu nar def nii bëri na ay conséquence yéen comme yéen ay étudiants yi yéen a war a dem ci ci ci université waaw waaw booy seet euh, ni nga ko waxee rek am na dina affaire dina am dina am ay conséquence dina am ay conséquences loolu moom euh, donte nag euh, nekk na loo xam ni yombul éviter parce que. comme ni ma la ko waxee sànq rek regroupement bi nga xam ne mooy am foofu ak euh, étudiants yi ni ñu duggantee boo gisee euh, maanaam bu infection bu fa amee rek donc risque propagation infection bi boo xam boo gisee dina gaaw dina gaaw trop parce que étudiants yi ni duggantee moo tax donc foofu noonu déjà effectif yi nga xam ne ñooy nekk université foofu bu fa infection bu benn infection bu fa amee c'est terminé parce que bu baax tu es obligé xanaa peut-être fekkee c'est possible nga quarantaine tous les étudiants te loolu c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée quand même voilà léegi après ces étudiants là vont rentrer chez eux voilà te da ngay gis par exemple ku jigée Tambacounda foo xam te ne peut-être dégguñ fa corona wala ku jóge Kédougou foo xam te ne dégguñ fa corona léegi après il va rentrer chez lui maintenant bu ñibbee mu joxe ko foofu donc mën naa gis ne affaire yi mën na jur ay ay conséquences yu bëree bëri. waaw parce que tamit euh, mu doo ci mën a mujj parce que une fois que mu am yow dèjà balaa ngeen ni xam ne corona am na fekk ne infecté nañu bari infecté nañu bari kon donc balaa ñu koy xam boo amul sens mën na taar mën na taar parce que euh, yeneen beneen conséquence tamit si côté pédagogique bi mooy s'il y a des étudiants yoo xam te ni ils sont en quarantaine ñoo xam te bi peut-être ñu ngi doomu jàngoro bi ñu ngi leen di mettre en quarantaine léegi ñooñu ils ont obligé ñu toog seen i kër donc duñ mën a ñëw wala fekkee ñoom dañu yor doomu jàngoro te donte peut-être ñoom ñu xam ne yor nañ doomu jàngoro bi mais euh, comme ça defaguñ test voilà kenn reconnaître ko ne def nañ def am na defaguñ test kooku tu la obligé mu ñëw jàng si yaa ko mu ñëw jàng si donc kooku noonu bu ñëwee mën na ka wàll ñeneen te effectivement daf koy wàll ñeneen parce que moom certes mën na ko xam il se protège il protège les autres muy takk maskam tout le temps. muy éviter di laal n'importe où parce que xam na ne ay camarades am dañ koy laal mais kooku est ce que mën demal dëkk si loolu durant temps bi fay def yëpp donc mën naa am ay ay ay ay conséquences yoo xam te ni yu yu ëpp sax yoo xam te ni sax ñun xalaatuñ ko woon parce que déjà voilà les étudiants sont trop nombreux voilà on se on se regroupe partout dans les bibliothèques euh, dans les amphithéâtres voilà dans les salles de classe bon donc moo tax euh, affaire bi daal. doy na waar doy na waar trop moom lu ma la si expliquer rek xamoon ne ndaw na xamoon ne <laughs> li ma la si expliquer rek ndaw na ga parce que comme ni ñu ko waxee rek université moom dellu fa ak période bi xalaat naa c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée donc donte woon obligé rek mais c'est pas une bonne idée ñu dellu fa heure yi wala rek il faut que am dispositif bu dëgër boo xam te ne fay nekk pour surveiller étudiants yi pour topp leen parce que étudiants yi dañuy dugg ci ville bi fa ñu fa ñu nekk dañuy dugg ci ville dañuy am ay échange ak les autres donc ñu mën nañ jëlee fu nekk doomu jàngoro après ils vont l'apporter à l'université te une fois mu explosé à l'université c'est terminé c'est maintenant le le pays tout entier sera infecté donc conséquences yu rëy am na ci biir quoi mam mam Khalifa. waaw Pape comme que conséquence yooyu noonu yëpp da ci am ñu ubbaatee université yi ñu jàng ci cours en ligne bi wala gisoo woon ne boobu yi tamit euh, solution la woon pour ñu mën a xeex ak Covid 19 bi. waaw moom Khalifa boo gisee tamit euh, comme ni nga ko waxee rek cours en ligne yi état bi booy seet euh, nekkoon na solution pour ñu continuer si def si sunuy cours def si sunuy continuer si sunu njàng. comme ni nga ko gisee cours en ligne boo seetloo moo gën a te boobu instant boobu tamit euh, risque d' infection yi presque amul amul risque d' parce que étudiant bu nekk da ngay toog sa kër nga def sa ay cours donc moo gën a efficace en plus di nga mën a protéger ñi nga xam ne ñoo di prof yi waaw protéger ñi nga xam ne tamit dañoo yor bépp beneen jàngor boo xam ni Covid bi arrangé tu leen mën na leen a ay jafe yu rëy rëy rëy si seen si seen wér yaram donc te tamit euh, booy seet mooy moo en plus pour les. pour l'État si je me trompe pas waaw moo gën a économiser pour l'État si je me trompe pas parce que boobaa dootoo fayati restaurant yi les étudiants dootuñu dugg restaurant nga kay fay bon consommation électricité bi dans les campus sociaux tamit daanaka dootoo ko fayati parce que étudiants yi ku si nekk yaa ngi sa maanaam dépense yi nga xam ne étudiants yi doon ko def yoo xam te ne presque état bi moo moo ko subventionné yëpp ah, dootul amati donc moo gënoon a économiser tamit moo gënoon a sur si période bi ñu toll nii waaye tamit boo gisee euh, cours en ligne moom xalifa li taxoon mu nekk problème ba nga xam ne on pas continuer à le faire parce que déjà boo def cours en ligne vidéo yi da ngay soxla stabilité réseau da ngay soxla stabilité réseau boo xam te ni moo lay permettre nga rester si ligne bi def sa cours correctement waaw euh, beneen bi si topp rek mooy euh, parfois Sénégal am na si ñoo xam te ni zone yi nekk presque amul couverture de réseau bu ñu bëggee oote ils sont ñu yegg yenn altitude yi wala ñu dem ba si yenn dëkk yi pour mën a am réseau bu normal donc ñooñu noonu fekkee danga bëgg a continuer def ay cours en ligne di leen teg coono boo xamante ni dellu si woon université moo lañ koy gënal en plus euh, les étudiants par exemple ñoom peut-être dinañ am difficulté fay euh, connexion bi yëpp fay connection bi boo boo gisee sa état defoon na si jéego jox étudiants yi ku nekk cinq giga jox étudiants yi ku nekk cinq giga cinq giga pour def les cours en ligne xam na ne loolu tamit euh, booy seet nekkoon na loo xamante ni. peut-être defoon nañ ko pour euh, gars yi am avancement tuuti si seen programme waaye tamit euh, cinq cinq giga doyul si combien de mois combien de mois la ñu doon def cours en ligne cinq giga donc doyul donc nga te tamit euh, comme proposition bi ma njëkk teg rek mooy ñi nga xam ne déjà zone yi nekk amul couverture de réseau bu baax amul couverture de bu baax donc ñooñu ren mënuñoo def cours en ligne yi tout le temps parce que tamit dañ leen sonal voilà duñ mën a suivre ñooñu presque sacrifice ngay def sacri da nga leen voilà ñeneen ñi tamit beneen problème bi y a des étudiants yoo xam te ne amuñu smartphone amuñu ordinateur donc ñoom ñëw classe la ñuy def prendre note bu ñu demee si liñ jël la jànga kooku boo koy defaloo cours en ligne tamit di nga ko sonal sonal boo xam te waaw loolu daal moo yokkoon nekk inconvénient yi moo tax cours en ligne yi cours en ligne yi man man gisoon naa tamit du woon du solution la du woon solution parce que tamit di nga si lor étudiants yi bari waaye bu fekkoon heure bi tey étudiants yëpp par exemple état dafa def. Euh, tous les régions du Sénégal fi nga xam ne ENO yi disponible nañ fa ENO université virtuelle yi peut-être étudiants yi di dem foofu comme ça ñu jël benn zone boo xam te ni étudiants yi ñooy dem foofu daje fa benn zone bien déterminée ñoom ñooy dem foofu fa la ñuy daje ji def fa seeni i cours en ligne après yi rentre seize heures loolu peut-être moo doon tane fekkoon cours en ligne dina continuer ba tey tamit ENO euh, yi tamit euh, couvrir lu Sénégal yëpp. te étudiants yi ñu ngi partout au Sénégal donc loolu moo taxoon ma gis ne euh, état mënu woon a continuer cours en ligne parce que boobaa dina am ñun sacrifié. waaw Pape comme que waree wa dem na kër comme ni ñu koy waxee léegi moom yaakaar na mënatuñoo delu gannaaw léegi nooy conseillé sa mbokk étudiants yi war a jógee ñuy jógee Kaolack ñuy jógee Matam ñuy jógee Louga war a ñëw reprendre cours yi ban conseil nga leen di jox pour que ñu ñëw. ak àggalewaat njàng mi comme niñ ko dooree woon. waaw maam Khalifa fa euh, moom xam naa <laughs> conseil bi ma jox sam bopp rek laa jox sam moromu étudiant yëpp bu ko defee ku nekk ak foo mënti jugee waaw bu nekkee zone rouge ak bu nekkee corona amagu fa ak foo mënti jugee rek xamal na yow yaa mën a protéger say camarades génnaaw ba nga protéger sa bopp ba noppi waaw ku nekk xam ne nit dafa sensible dara xaju si moom. yow boo xamee ne sax euh, rime nga am rime bu ndaw defar de tele sort que ba say morom bu ñu attrapé rime bi néppal noo mën a protéger say morom protéger leen ko yow tamit nga jëm a faj ba sa rime dañ nga bañ ne a infecté rime boobu noonu xalaat naa jamono bi ñu toll loolu moo ci gën a nekk solution ku nekk boo ñëwee nga nekk sa magum bopp bàyyi néglisance parce que Séné ñu Sénégal euh, habitude bi ñu am maanaam dañu gaaw a dañu gaaw a négliger dara parce que buñ dëkkee moom fan ñett rek après dañ koy négliger. ñun loolu moo ñu bokk na suñu point faible yi gën a mag ñun lu ñu nekkal ñaari semaine ñetti semaine après dañ koy négliger te par contre négligence warul nit nit warul di négliger dara tout le temps xelam war na di calculer yooyu yëpp ko defee daal feebar bi mu ngi fii mu ngi si différentes zones du Sénégal donc ñi nga xam ne ñoo jóge feebar bi am tamit ñu def de telle sorte ko xamal xam jéem a jéem defe ji test boobu bu ñu mënee defe ji test waaw balaa ñuy jàng ji. wala bu ñu mënul def test nañ xool yi waaw ay bërëb yi nga xam ne mën nañ faa dem def visite nit ñi xoolal leen ba xam euh, maanaam médecin yi xool leen ba xam ñu ngi ay doomu jàngoro wala nekk ñu yenn doomu jàngoro balaa ñuy dellu ñi nga xam tamit ñu ngi si zone yoo xam ni corona amagu fa ñoom tamit ñu jël seen disposition yi nga xam ne moom lañ moo leen moo leen war nañ indaale seen masque assez de masque yu doy buñ mënee amaale tamit seen i gel alcoolique personnel ñu amaale seen gel personnel te buñ ñëwee tamit euh, Euh, méfiance yi bari quoi parce que man loolu laay gën a conseillé tous les étudiants na méfiance yi bari nañ méfier aussi tout le monde parce que loolu moom dina bokk dina tax ñu respecté tuuti mesures barrières yi maanaam même yow sa xarit bi nga xam ne yéen a ànd sa bokkale fi ngeen dëkk boo leen ñëwee sax amatul joxe jaratul ngeen di joxe loxo bu bari jaratul sax ngeen di joxe loxo bu bari parce que yooyu yëpp tamit euh, da da lay daf lay dimbali parce que sa morom sa ki ngay nuyu mën na nuyu koo xam te ne mu ngi doomu jàngoro bi mu ñëw nuyu la yow. yow na nuyoo yaa ngi jël dara lekk après wala nga jël dara naan ak say loxo xam nga mën nga am doomu jàng te xarit bi la ko apporter sax moom amu ko donc nuyoo yi nuyoo yëpp jara mën na mën na wàññeeku méfiance yi bari voilà fooy toog rek defal dana tet ne fi am na ko fi toogoon peut mu ngeex doomu jàngoro bi moo tax di nga maytu yu bari yi nga xam ne di nga ko def maytu yenn échange yu bari yi maytu tamit yenn rassemblement si yenn lieux yu fermé yi comme niñ koy defee suñ groupe travail toog si benn salle bu fermé wala toog si yenn ruq yu fermé yoo tamit wóorul parce que bu si kenn amee doomu jàngoro yi rek dèjà en plus plus que ñuy def ay waxtaan bon jëmu jàngoro bi c'est dans l'air ak benn concentration bu élevée donc foofu risque yi tamit nga infecté wu bari na moo tax mieux nañu toog si salle yi nga xam ne dinañ aéré maximum possible même s'il faut ça dans la cour <laughs> xam naa les étudiants duñ def loolu. waaye daal ku nekk xam ne yaay sa magum bopp xam ne Fairbank fii ëppoon nañu doole ëpp na état bi doole waaye nag nit ñun ñoo ko mën ñun nit ñi rek suñu booloo moo ko mën a moo ko mën a wàññi te suñu booloo weesuwul ku nekk xam ne man mii mën naa yenu doomu jàngara bi jox ko sama morom donc dinaa def lu tuuba duma ko yenu waaye tamit dinaa def lu tuuba sama morom duma ko jox loolu daal xam naa moo ci conseil bi nga xam ne étudiant buy ñëw war nga ko bàyyi xel war nga ko bàyyi xel te en plus les ñoom dañ leen leen ay intellectuels maanaam ñoom war nañ xam nañ ni jamono bi tëddee xam nañ ni jamono bi doxee donc ñoom kenn warul leen njëkk a xam ñun ni ñu war a protéger seen bopp te sante nekkul lu ñu fowee santé surtout les études dafa ànd ak santé nekkul lu ñu fowee te université moom ni ngeen ko xamee rek ku nekk mu ngi fa étranger mu ngi fa ñu fi juddoo ñu ngi fa bu ko dee ñoo ñëpp ñoo leen war a ñoo jàppante suñu biir respecter mesures barrières yi man su ma la bëggee. parce que dama dama bëgg naa la peut-être maa ngi yoruma doomu jàng mi daf na dama la bëgg moo tax du ma la jege parce que bëgguma transport doomu jàng bi indi la ko waaye bëgguma yow nga jël doomu jàng rek ma ko parce que dama la bëgg moo tax mieux vaut mu yem si yow wala mu bañ la ko jox maanaam mooy gën parce que moo ko joxee ma joxaat ko ñeneen bu boobaa chaîne bi day continuer mais maa ko dagg rek mu yem si yow kon dina peut dina tane en tout cas daal loolu laay conseillé ñëpp ku nekk jàppale sa morom jàppale sa bopp xam ne yaay sa magu bopp mesures barrières yi yàgg na ñu ngi koy insister si télé yi ñu ngi koy insister si rajo yi ñu ngi koy insister si journaux yi donc loolu de nañ koy jéem a respecté bañ a def benn néglisance ba nga xam ba ba jàngar bu jógee fi incha allah. waaw merci beaucoup Pape ci conseil yi nga jox sa mbokki étudiants yi am na solo ñoom ni nga ko dégg te bàyyi ci xel. Tacko TV Pape mu ngi lay jaajëfal di la bàyyi nga wax sa mot la fin. waaw xanaa di kontaan trop si émission bi di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi suivre émission bi yëpp ah, di leen jaajëfal bu baax a baax di la jaajëfal surtout yow Mame Khalifa wax ne kontaan naa tamit si invitation bi wax dëgg yàlla. am na am na am na njëriñ trop émission yi moom am na njariñ trop wax dëgg yàlla xalaat na war na nekk loo xam ni ndawi réew mi yëpp dañ ko war di suivre ndawi réew yi dañ ci war di suivre ak di ci participer parce que tamit am na njariñ trop trop trop waaw. <laughs> jërëjëf Pape ci conseil yi am na solo ci ñaan yi ñu bokk ko ñun ñëpp mbokk yi doon suivre seen émission école ak maam xalifa fii la ñu yem ak yéen. leen wax bu leen bàyyi di leen ñu suivre chaque mardi fii lay doon suñu chaîne YouTube Tacko TV di leen fa abonné tey bés suñu cloche ndax suñuy notification di wàcc seen téléphone di leen wax rek ni fépp fu ngeen ko abonné fu dul fii rek yàq ngeen seen abonnement fii rek la di leen jox dig daje yeneen invité ci seen émission école ak Mame xalifa sur la chaîne Tacko TV mbokk yi jërë ngeen jëf. grande émission sur votre Sainte TV. Oui. avec votre émission préférée école ak moom Khalifa émission bu mag baa ngi noonu mbokk yi yeeg si na yéen a ko doon laaj émission bu mag bi moom Khalifa di leen koy defal l'école ndaanaan ci biiri ndaanaan ndaanaan di dalal ay morom yi ndaanaanam question réponse entre enseignant et enseignant élève et enseignant ay jàngat yu am solo ci biir école yi wante du ca yam di dalal enseignant yi benn par benn ñu jooy li nga xam moom leen metti wax li nga xam Equivoco TV ñëpp fii lay leeree gaaxoon la votre chaîne préférée bu ñu ko fàttee toutes les mardis saa seet sa téléphone toog di ko xaar yu doy waar seen émission l'école ak moom Khalifa yamul ci loolu yow mi nga xam ne seetaan na vidéo bi nga am ci ay question bind ko ci suuf moo xam question yu jëm ci élèves yi la wala ci enseignant yi wala jàngat yu am solo yi ñuy def ci biir daara yi bu ko defee ñu andi la si yeneen émission yoo xam ne yu am solo la. boo kii émission baa ngi ak moom Khalifa. sur votre scène préférée, Taco TV, la lumière du cœur, l'héroïne, l'héroïne, l'héroïne, l'héroïne.